te olof nee na li ci maam sëta koy jël sëriñ seex njaay njare nag sëriñu lasraar la boo xam ne dina yëngu ci wàllu seet ci listixaar te nee na fu waay mën di nekk ci àdduna boo ko woowee dina la seetal wax la lu la kenn mosul wax ci sa dund waaye nee na ma am na cangat yoo xam ne cangatu njara lañ koy wax cangat googee lu ne la mën ci àdduna waaye tamit nee na ma am na ndombo njare gu mu yor ndombo googee nag képp koo xamante ni da ngay lijjanti ay kayit rawatina ñi nekk ci bitim réew wala ñi nekk ci réew mi di yëngu ci politique ndombo googee ku ko am dina la musal ci cat ba noppi aar la may la mboolo sëriñ bi tamit nee na dina faj feebar yi sonnal askan wi yépp moo xam néew kattan la wala imorit ndoxum siti ak feebar yu ndaw yooyee nee na tamit dina yëngu ci wàllu cangat wàllu rabit dina ci yëngatu wàllu noobit sëriñ Seex Njaay njare dina ci yëngatu sëriñ bi nee na ma képp koo xamante ni tamit da ngay football bëgg a signé pro boo ko woowee am na ñaan yu mu la ca mën a defal sëriñ bi nag ko bëgg a gis ma nga ca cité Aline Saw waaye ku bëgg a jàkkaarloo ak moom tamit xam whatsapp la wala appel numéro baa ngi nii 77 460 47 36 ma baamtu ko 77 460 47 36 loolu mooy numéro Serigne Cheikh Ndiaye Njare ku jokkoo ak moom rek bu leen yàlla dëppalee di nga ci am lu kawe sa njortu. ñu door revue de presse bi dooree ko stade yéenekaay ligue des champion bi war a am tey jii la surnal bi fësal ca xët wu njëkk wa rawatina diggante Real de Madrid ak Liverpool tey jii dinañu jàkkaarloo ca Santiago Bernabéu bu dee yogon club mi tàggat Liverpool. nee na tey jii seen wërsëg dinañu ko jël ca Santiago Bernabéu même bu dee un pour cent la ñoom noppi ñu ngir jël ko ci kaw Real de Madrid bu dee Carlo Ancelotti mi tàggat Real de Madrid ni match bi dina doon match bu ubbeeku lool ci fàttali match aller ba Real moo gagné woon juróomi bal ci ñaar tey jii nag le retour bi bu vingt heures jotee ca Santiago Bernabéu beneen match bi tamit moo ngi war a dox ci diggante Napoli ak Francfort waa Napoli nag ki leen di tàggat wax na di Spalletti nee na tey jii li ñu bëgg moo di gagné qualifié te tey nag mbir mu métti mu ngi leen di ci fàttali Napoli ba mu sosoo ak tey jii mosul dem ci quart de finale Ligue des champions te def ñu jéego bu am solo match aller ba ñoo gagné ñaari bal ci dara tey jii nag ñooy dalal Francfort ca stade de Maradona waaye Francfort moomee ñuy dalal ki leen di tàggat wax na muy Glasner li mu xamle moo di tey ñoom liñ bëgg moo di jëmbat fulla remonter Napoli qualifié kon tey match boobee du yomb dina miti lool Napoli nag nu ñu mën a qualifié baax na li ñu bëgg moo di qualifier loolu la xam le Edouard Mendy tamit moo ngi ci journal bi journal bi nag dafa xëy samp laaj ci doomu Sénégal bi xam ngeen ne blessé woon na bu yàgg waaye jamono ji nag wér na dooraat na entraînement collectif yi waaye journal bi nee na file ak ñuy jàkkaarloo ak Mozambique ndax Edouard Mendy dina nekk à cent pour cent ba mën a ñëw jàppale Aliou ci ñaari match yi nga xam ne war na koo amal ak réewu Mozambique maa ngi leen koy laaj ci commentaire yi waaye journal bii di stade di yéenekaay tamit ñëw na ci coppite yi nga xam ne waa FIFA amal nañu ko ci coupe di monde deux mille vingt six bi ñu dëgmal xam ngeen ne bu njëkk coupe du monde bi. 32 équipes ñoo ko doon jongante maanaam fanweer ak ñaari réew ñoo ko doon jongante léegi yokku nañu ko 48 équipes ñeent fukk ak juróom-ñett ñoo koy jongante loolu nag su amee match yi day yokku ndax bu njëkk 64 match la doon doon léegi nag day nekk cent 104 match li ko waral moo di dañoo yokku réew yi doon qualifié dem di ko jongante bu njëkk 32 la woon léegi 48 équipes ñoo koy jongante loolu moo tax match yi day yokk dem ba téeméer ak ñeenti match ñu jugee Sénégal wutali France fekk fa l'équipe Haaland le journal bi fësal ca xët wu njëkk wa defati na mëninam de club ba mu nekk di Manchester City RB Leipzig la ñu doon dalal démb dóor ko juróom ñaari bal ci dara waaye doomu Norvège bi juróomi bit la dugal ci benn match loolu nag dugal na ko ci taarix ndax ci histoire Ligue des champions ñett képp ñoo ko fi defagum muy moom mi ko def démb Lionel Messi ak Luis Adrian bu dee Lionel Messi moom ci atum 2012 la ko def bi Barcelone di jàkkaarloo ak Bayer Leverkusen dóor ko juróom ñaari bal ci benn bu dee doomu Brésil bii di Luis Adriano moom mi ngi ko def ci atum 2014 clubam di Shakhtar Donetsk moo doon jàkkaarloo ak Bati Borisov dóor ko juróom ñaari bal ci dara kon ñoom ñett ñi képp ñoo mos a dugal juróomi bit ci benn match mu soxal Ligue des champions muy Luis Adriano Lionel Messi la Pulga ak Haaland kon juróomi bit yi mu dugal démb bi mën Manchester City di jàkkaarloo ak RB Leipzig dugal na ko ci taarix muy doomu Norvège bii di Erling Haaland ñu jugee France wotali Londres Angleterre fekk fo Mirror Sport Haaland la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa joxe na juróom démb bi clubam di jàkkaarloo ak RB Leipzig loolu nag dugal na ko ci taarix ndax Ligue des champions néew na lu ci benn jour di dugal juróomi bit ci benn match doomu Norvège bi nag def na ko. loolu nag dugal na ko ci taarixu Ligue des champions ba noppi dugal ko ci taarixu këlëbam ndax jamono ji am na 39 buts ci saison bi yëpp moo xam Ligue des champions la Premier League ak coupe yi muy football 39 buts Haaland dugal na ko ci 36 match yoo xam ne jongante na ko. jamono jii nag mooy meilleur buteur ci benn saison maanaam benn saison nga dugal ci lu toll noonu ci ay buts kenn mosu koo def. ca Manchester City record ba fa nekkoon mi ngi fi nekkoon ci atum mille 1929 ki ko defoon moo di Tammy Johnson te moom 38 bit la dugaloon ci benn saison Haaland nag saison bi jeexagut am na 39 bit kon battre na record boobee loolu ba Manchester City sosoo ak tey jii kenn defu ko benn saison nga dugal lu mu gàtt gàtt 39 but Haaland def na ko te saison bi jeexul saison bi ñu nekk nag Ligue des champions Haaland mooy meilleur buteur ndax am na fukki but waaye tamit ci histoire Ligue des champions mooy xale bi am 22 ans képp lu mu gàtt gàtt nga dugal 30 but te am na 30 ci Ligue des champions am 22 ans kon Haaland football yaakaar na ko lool waa Liverpool tamit ñoo ngi ci journal bi ñoom tey ca Santiago Bernabéu la ñu jëm kii wax ci match boobee moo di Jürgen Klopp nee na ñun nag sunu wërsëg néew na lool ca match boobee waaye football nag dafa doy waar lool li ñu war moo di jëmbat fulla tegal gita ngaas waa Real de Madrid yogoon club moo yëkkati kàddu yooyu ñu jugee Londres Angleterre wutali Espagne wàcc Madrid fekk fa Marca ca cappacolik Norvège bi di Haaland la journal bi fësal ca wu njëkk wa dugal na juróomi bit ki koy tàggat di Pep Guardiola ne ko kaay noppalu balaa ngaa rey gaañi moom Haaland démb dafa mel ni dañu ko xaptal mu doxal dugal juróomi bit ci cinquante sept minutes. loolu nag yomb lu muy am ci Ligue des champions benn match nga dugal juróomi bit ñett képp ñoo ko mos a defagum bi Ligue des champions sosoo ak tey jii muy Lionel Messi la poule ga ak moom mi ko def démb ak doomu Brésil bii di Luis Adrian ñett ñi képp ñoo ko mos def ci histoire Ligue des champions bi muy génn nag match bi des na fanweeri minute waaye jamono ji nag mën Manchester City dem nañu ca quart de finale ya bii nag mooy juróom benn yoon yu tegaloo ñuy dem ci quart de finale li ñu bëgg moo di jël ko ndax Pep Guardiola ba mu demee ci mën Manchester City ak tey jii mosul jël Ligue des champions jël na Premier League Carabao Cup FA Cup ak coupe yu bëri waaye Ligue des champions moom mosu koo jël ak club bii di Manchester City ren nag li mu bëgg moo di jëmbat ful la jël ko. journal bi tamit mi ngi ñaax waa Real de Madrid tey jii Liverpool la ñuy dalal ca Santiago Bernabéu nee na leen nag guddi yu neex yi ngeen ñi tàmmaloon indi leen ko tey jii Liverpool la ñuy dalal bu vingt jotee ca mat aller ba nag cinq 2 la ko Real de Madrid dóoroon. kon def nañu jéego bu ama am solo. ñu jugee Marca yéenekaay jël AS yéenekaay waa Real ak Liverpool. Pool le journal bi fësal ca xët wu njëkk wa mi ngi leen di artu nag alerte rouge li ko waral moo di Liverpool tey jii ñëwul ca Santiago Bernabéu ngir di xoole li mu bëgg moo di doxal qualifié kon Real de Madrid bu ñu naagu naam defoon nañu jéego bu am solo dóor ko ca match aller ba 5-2 waaye tey jii li leen war moo di jëmbat fulla waaye bu dee Vinicius moom yeb na lool waa Liverpool ndax buy jàkkaarloo ak ñoom lu mu gàtt-gàtt dina dugal benn bit tey jii moom dinañu def rénkum jàkkaarloo waat waaye Mohamed Salah moom ba mu dalee football ak tey jii mosul am ndam ci kaw Real de Madrid moo xam ba muy nekk Chelsea AS Roma ba ca Liverpool Mohamed Salah mosul am ndam ci kaw Real de Madrid. ñu jugee Madrid wutali Barcelone fekk fa Esport Gérard Piqué la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa moom nag ci mbiru Negreira ak waa Barcelone ci lay wax nee na li ci xew lépp. complot la gaañ yi dañoo bëgg a gasal kàmbu Barcelone tegal ko ay ndëgg sërëx waaye lii complot la ñun ba ñuy nekk ca Barcelone dañoo nekkoon ndaw ba noppi am doole mën a football lool moo tax ñu daan am ay ndam waaye benn arbitre mosuñoo jàppale kon mbir mi complot la loolu nag du samay kaddu kaddu Gérard Piqué la waaye wax na tamit ci Lionel Messi dina dellu siwaat ci Barcelone am du fa dellu siwaat wax na ci nee na Messi de li ma jàpp moo di moom jamono jii wutul dara ludul fu mu mën a bégee fu jàpp ne bu fa demee dina am jàmm ak salaam rek dina fa dem loolu la Piqué xamle Juan Laporta di président u Barcelone it mi ngi ci journal bi waaye waxul nag ci mbiru Negreira ci li muy wax moo di mercato bi démb bi Porto di jàkkaarloo ak Inter demoon na seetaani match boobee waaye li ko yóbbu woon moo di jàkkaarloo ak George Mendes ñu waxtaanee ëllëgu xale yi muy Bernardo Silva mi nga xam ne ma ngay football ca Manchester City moom agent wam moo di George Mendes moom la ñu doon waxtaanee ay mbiram ak ñaar ñi nga xam ne ñoo nga ca Barcelone muy Alejandro Balde ak Ansu ngir lan ñu yokk seen contrat toog foofe doxal bu dee Bernardo Silva Barcelone da koo bëgg te Jorge Mendes mooy agent wam loolu moo ko yóbbu woon ca portigal ñu juge esport jël Mundo Deportivo wa Barcelone la fësal ca wu njëkk wa rawatina Alejandro Balde ak Ansu Fati. li espor wax moom la Mundo dëggal président wu Barcelone ma nga woon ca Portugal démb doon fa jàkkaarloo ak Jorge Mendes ñuy waxtaanee ëllëgu gone yi muy Alejandro Balde Ansu Fati ba ca Joao Cancelo ak Bernardo Silva. ngir lan gone yooyee George Mendes mi leen yor juboo ak président wu Barcelone bi ngir ñoom ñëpp ñu nekk ca Barcelone doxal bu dee Ansu ak Alejandro Balde ñoom ña nga ca Barcelone waaye Barcelone liñ bëgg moo di yokku seen i contrat bu dee ñaar ñi moom ñëwaguñu waaye li waa Barcelone bëgg moo di ñu ñëw jàppale leen muy Bernardo Silva ak Joao Cancelo. ñu jugee Espagne wutali Italie wàcc Rome fekk fa Corriere dello Sport waa Inter la surnal bi fësal ca wu njëkk wa démb nag tiitoon nañu lool rawatina ki leen di tàggat di INSA gi ca Porto la ñu demoon waaye dañoo témboo kenn dugalut ci sa kangu morom jamono ji nag Inter dem na ca quart de finale ya kon kat INSA gi mën naa noyyiwaat li ko waral moo di démb suñu ko éliminé woon rek du fanaan ca club boobe waaye jamono ji nag xelam mën naa dal kon mën naa yeggali saison bi ak clubam di Inter bu dee waa Napoli moom ñoo ngi jàkkaarloo ak histoire tey jii li ñuy gént moo di am ndam qualifié dem ca quart de finale ya te loolee nag bi Napoli sosoo ak tey jii mosul am Francfort la ñuy dalal ca stat de maro Maradona ci fàttali match aller bi Napoli moo fekki woon Francfort dóor ko ñaari bal dara kon def nañu jéego bu ama am solo waaye mbir mi jeexagul li ñu bëgg moo di jëmbat fulla qualifié tey jii loolu la journal bi xamle ñu jugee Corriere dello Sport dem Milan fekk fala la Gazzetta dello Sport aller Inter Inter démb def na jéego bu ama am solo dem ca quart de finale ya Porto